la ko waral mooy dund gu métti gi nga xam ne ñenn ci askan wi ñoo ngi koy dund moom sociologue bi nee na ci Sénégal bëri na ci ñoo xam ne dañuy li ngir dund ñooñee boo jekkee-jekk na leen heure bii ngeen di tëdd te seeni jafe-jafe lijjanti woo ko maanaam mer mu rëy mën nañu ko mer ba tey ci biir journal bi ñu fekk fa maître Abdoulaye Tine moom nag daan nay wax ne mesures yi nga xam ne état bu Sénégal jël na amul benn njëriñ moom noonu la ko gisee ndax sax dafa jàpp ne état bu Sénégal dafay tâtonner maanaam dafay làmbatu ci ni nga xam ne moom la ñu yore woppi coronavirus moom maître Abdoulaye Tine nee na jamono ji kenn xamul état bu Sénégal lan la bëgg ndax ay jamono moo fi jekkoon jekk indi fi état d'urgence ak couvre-feu jekk-jekk daal di ko fi jëlewaat daana dund leen ak jàngoro ji xëyaat benn bis rek ne nag dafay def état d'urgence ak couvre-feu jamono jii xamuñu benn état sax la ñuy gëm ba tey ci biir yéen kaay gii de la Tribune nee na en tout cas li am ba des daal jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal jamono jii fu ko waaye nat daan na koy passé ka manifestation yu të dakk yi nga xam ne am na ci réew mi journal bi li mu gis mooy réewum Sénégal ci atum 2021 bi ni mu commencé neexul te boo moytuwulee jafe-jafe yi dafay gën di yokk woppi coronavirus ma ngi yokk ci réewum Sénégal ndax ni ki démb lu toll si juróom-ñetti nit ñàkk nañu ci seen bakkan am na lu toll si ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ñoo xam ne amee nañu doomu jàngoro ci yéen kaay gii di Vox Populi nee na liggéeykat yi nga xam ne ñooy liggéeyee ci hôtel yi ak ci baar yi ak ci restaurant yi ñoo ñu rey nañ leen te deewuñu yéen kaay gi nee na état bu Sénégal jël na bic ak feuille signé arrêté de mort ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi nekk ci hôtel ak baar yi ak restaurant yi urgence couvre-feu bi nga xam ne état bu Sénégal andi na ko fi loolee tax état bi gën leen a sànk màggalug poroxaana woppi coronavirus ji law ci réew mi tax na Serigne Mountakha daan na koy annulé maanaam daan na koy dàq ba jëmmi jamono yéene kaay gii de la Soleil nee na feebar bu doy waar moo dal ay ginaar maanaam grippe aviaire nee na lu toll si ñeen fukk ak ñaari junni ci ay ginaar yoo xam ne dee nañu ak lu toll si ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñett ay nen yoo xam ne dañu ko consommé yooyu yëpp daat nay yàqoo yéene directeur général bu Dakar dem dikk di Boun Khatab Sylla yàq na musiba ak mbelengaan maître Moussa Diop mi nga xam ne moo jiite woon kër ga nee na ay tojaange ki giraawale ki wuruj yu doy waar la maître Moussa Diop def Dakar dem dikk ndax lu toll si ñaari téeméeri agent fictif yoo xam ne maître Moussa Diop dugal na ko Dakar dem dikk ba pare ay milliards yi milliards la état bu Sénégal ñàkk ci Dakar dem dikk yéen a kaay gi de la Tribune Boun Khatab Sylla Dakar dem dikk ci quarante deux ci ay perte amee na fa am na lu ci ay bus yoo xam ci paan yéenekaay gii di Vox Populi moom Boun Khatab la bàyyiwul maître Moussa Diop yekk na ko musiba ak na ndax nee na ñaari restaurant yi nga xam ne moo gën a rëy ci Dakar dem dikk ñaari soxnay Moussa Diop yi ñoo ko doon gérer yéenekaay gii de Les Échos nee na fan yi ñu génn maître Moussa Diop doon na wax ne ay indemnité am joxuñu ko ko waaye nag loole daat nañu koy weddi ndax nee nañu maître Moussa Diop ay indemnité am bi ñu ko xoolee cent vingt millions la première tranche bi jox nañ ko lu toll ci trente millions maître Moussa Diop ay recrutement yoo xam ne tegu ko fenn moom la nekk woon Dakar dem dikk ma dëkk ci yéen kaay gi du njiitu réew mi di président Macky Sall joxe na ay directive ngir nag jaari sow mi nga xam ne moo ne mes na menten ca diwaanu Paris la France ngir nag ñu daal di koy wër ñoo am na niki démb lycée Louis le Grand ak élèves senegal yi nga xam ne ñoo fay jàngee famille jaari sow ñoom nag démb wàcce nañu ay kaamil ngir nag seen doom jooje mën a feeñ jamono ji ñoom ñoo nga si njàqare ak tiis yéen kaay gi de Libération nee na mbir mi li ci doy waar mooy jaari sow ba léegi nii amul yenn nouvelle wala yenn xibaar yoo xam ne amee nañu ko ci moom yéen a kaay gi di réew mi quotidien séq waxtaan wu yaatu ak Amira Abed mi nga xam ne aw waykat la d'origine libanaise ñu ràññee ko loola ci ay kàddooma daat nay wax ne ba muy am lu toll ci fukki at ak juróoma la dugg ci chorale lycée d'excellence Thierno Seydou Nourou Tall bu Ndakaaru fala jàngee way wax na li ko inspiré ba mu dugg ci musique bi wax na kan mooy idolam nee na Rihanna mooy idolam ak Jahman Express daat nay wax tamit li nga xam ne mooy ay projet ma nee na étudiant la ñaareelu année ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yéen a kaay gi di 24 heures ak les échos